on doit faire un changement épistémologique. Mhm. mooy maanaam nit ñi lañu ñu war a soppi. mais du système parce que nit ñi ñooy gérer système ñooy defar système bi ñooy defar système mhm. nit ñi ñoo nekk du ay mala ñoo nekk ci circulation bi di daw. Mhm. ay nit ñoo nekk ci circulation bi yoro oto yi nekk ci biir oto yi di ci nekk ay usagers ñiy nekk ay transporteurs. su nit ñi soppeekuwul xoolaat beneen xalaat amaat beneen comportement bu ñu am li xew Sénégal rek moo fi xew. Hmm. wala budda parce que nag Sénégal dafa dafa dafa gaaw ci fatalité yàllaa ko dogal. dañ cee gaaw de. amul benn loo xamante ni responsabilité la. Hmm. la xew ci accident yëpp finalité bi soo déggee da ngay ni responsabilité nit la du lenn loo xamante ni yàlla lu mu dogal la. billaay doomu aadama rek. doomu aadama moo def taxawaay taxawaay boo xamante ni li ko dal dal dal na ko donc doomu aadama la war a defar mooy épistémologique. pas hmm. système. parce que doomu aadama su baaxee rek système ba baax. donc système transport bii. ña ca nekk da ko dawal lañu ñu war a soppi wala ñoom ñu soppi taxawaay. donc defali usagers yi bëri nañ responsabilité ci biir transport bi. parce que ñoom ñooy dugg ci oto bu fees. ñooy fekk oto bi fees ñu burux lu dugg ci. parce oto démb ba da doon course mais dafa duy ba fees. ba nit ñi taxaw. mu daw ba pare jiix jiix gisul frein di jàdd dëpp oto ba mooy responsabilité état nga ca parce que oto boobu nokkan la def ba am visite technique. visite technique naka la oto boobu def ba am visite technique ba war a mën a daw ci circulation. les responsabilités sont partagées. parce que nag suñ nee état état ñun la. parce que donc les responsabilités ñun ñëpp ñoo ko bokk. gis nga. il faut qu'on nay vers des sanctions parce que nag 20 morts ci diggante bu gàtt. Mhm. ak ay blessés yu bari ci diggante bu gàtt malgré mesures yi ñu jëloon démb ak barke démb. Mhm. loolu c'est c'est anormal. Mhm. parce que transport warul nekk morgo boo xamante ni population yi lañ cay yóbbu. te loolu su amee il faut qu'on nay vers les états généraux du transport loolu laa jàpp. ñu tëggaat ko. xool naka la ñuy délivrer les permis ça aussi c'est important xool naka la ñuy délivrer les visites techniques ba pare oto yi âgé ah, na ñangeen bi xam naa ni ndekki nga balaa ngaa ñëw am na oto yoo xamante ni Maria waratuñu daw Sénégal. waratuñu daw de. car rapide Renault lëg fan lañ koy defaree te ci àdduna. amatul fu ñu koy defaree ci àdduna mais dañ koy defar fii Sénégal wala. Hmm. ay barigo lañ koy defaree fii Sénégal soo demee nu mu tëdd fële fële booru fa lañ koy defaree. garage la joor. garage la joor fa la defaree car rapide amul benn norme bu ñu respecté tata yi am nañ ñoo xamante ni dépassé nañ seen dure de vie te ñi ngi daw ba léegi. Hmm. waratuñu daw ci circulation yi muy tata muy taxi muy leneen ak leneen ak leneen loolu responsabilité état la. donc il faut qu'on mette en place des mécanismes yoo xamante ni dañuy protéger les populations les usagers la ñuy protéger mais usager bi moo war a am ful la moom it mooy su taxawee ci arrêt bi bu mu dugg ci n'importe quel oto taxawee ci arrêt bi bu mu dugg ci yow da ngay dugg taxi sax mu wóor la ni taxi bii warul am visite technique mm-hmm. secteur transport lañ ca war a wax dafa bari mais que moom il est mm-hmm. te moom nee na li ci tali bi xam nga Maria yaa ngi gis vidéo boobu ci autoroute bi gars yi taxaw ñetti xale yi taxaw ci gannaaw Njaga Njaay bi di fo ci diggu autoroute bi. Mhm. di dóorante ay maajeer yaa ngi koy gis ci biir autoroute bi. mu ngi circuler. Mhm. ñaari Njaga Njaay toloo dóoraat ko kii di dóor kurpañ fii kii di dóor kurpañ bii ci biir tali bi la amee. <laughs> ñaari bus kii ubbi bunt kii ubbi bunt ñuy dóorante kurpañ ci biir autoroute bi la amee. et personne n'en parle.